conférence temm njiital opposition ci Sénégal bu ñu demee ba ñu doon xëccoo premier dem bay xëccoo deuxième euh, ku ci nekk ci ñoom war ngaa mën a xool nag sa bopp aw askan la ñuy xaar ci opposant tigi mooy mu dëkkee taxaw tem ci seen yitte euh, te sax bala nga ni naam ne fa opposant euh, bu fi taxaw jox dënnam Macky Sall amu fi kon bu ñu fi xëccoo chef de l'opposition ñi naan Abdoulaye Wade la ndax moo ëpp ay député ca assemblée nationale ña ca des naan sa Seck la ndax moo toppoon ca Macky Sall ca wotey njiitu réew mi ñu génn ak lu ci mën a am ñoom ñaar ñëpp ku ci ne xam nga xel ni boo wétee ak sa ngegenaay yi ca la ngay nas ak la ngay nocci la ca doon sa njëriñ moo ëpp fuuf la ca doon njëriñul askan wi du lu ñu mën a kitaabu nag waaye ñoom ñaar ñooñu ku ne leen jàkk ci sa rétroviseur xam ne lu tëgg nañ ko fi ci wàllu politique ci fàttali protocole bi ñu fi njëkk a dégg te duñu ko gaaw a fàtte muy rëbës ba mel ni làmb ji fi amoon daaw te woykat bi ne verdict bi la ñuy xaar ba tey na leen wóor ñoom ñaar ñooñu ne la woon wonni na politique léegi dafa soppeeku ña ci daan nelaw ña yeewu ñoo daanu ci seen kaw ñëpp fa fi réew mi di Sénégal dong ngay gis ñi ëpp ci opposition di laxasaka làqar ci nu ñuy dàqe ay wotey local ba bañ a sàmmante ak tëraliinu wote ci Sénégal koo ci waxal muy taafantaloo mbas mi te ñi fare ci nguur gi fu ñu waxee ni àpp bi ñu ko jàpp lañ ko bëgg amal mooy seen yéene ba ci président de la république ci bataaxal ba mu yónnee woon ca dialogue ba laaj bi di ndax li jàmm la ci opposition bi naam jàmm la ci li ëpp ci ñoom ndax ñu bari ci ñoom local yi duñu candidat fenn jarul ñuy lim waaye ku xool opposant yi nekk ca dialogue ba xam ni xëccoowuñu fenn seen njëriñal bopp rek bu doon nag way watee présidentiel ba tey réew mi tàkk na bu ñu naree changé app bi réew mi ñaanuñu yàlla mu tàbbi ci goutte waaye université yi ñu ubbi muy ndar di baambay di Ndakaaru ñooy Sénégal bu ci càggante amee mbas mi mën naa sekki te bu université yi ubbee ca dëgg-dëgg Grand Théâtre war naa mën a ubbi ay buntam artistes yi dellu ca seen liggéey feebar bi ci ñëpp la metti waaye rawatina nag ci ñoom ak jaaykat ya nekkoon ca Sandaga ñu nekk ci xeex mbas ñi ak di xool nu ñuy suqalee nit ñi ak seen wàllu koom ñu jële leen fa yóbbu leen ci àll ba ngay xëy ba jant bi so te doo soqiku jële fi Sandaga ana lu fi jar yàkkamti bàyyi leen fa woon ñuy fortaat ci jamono bu naqari bii dara gënu ko woon waaye fekk ay boroom kër eh, fu ñu def ay ñeent fukki at yàlla nga jëlee leen fa da ngay defar la nga yàq moo ëpp la ngay defar wasalaam